nekkoon na ay jàppante yu fa amoon doxoon diggante ñi nga xamante ni nag ñoo di ah, taalibe Cheikh Béthio Thioune ak ñii di ndawal kaaraange yi eh, bilan bi nag ci wàllub yàqu-yàqu yi eh, bëri na ba benn mairie tamit jot nañ ko fa toj reportage suñu nattangoo naataango Khadijatou si Thiès di jànkonteeg ak coow gu diir a ngi nii nag cantaku nii di fa fësal seeni mer ci mbedd mi ñu jël nag tali bi def ko xeexukaay xeer yu fa fës woto gu ñu taal di tax ba yeneen woto yi di tegge mairie ba nag dara desatu fa ay vitre yu ñu toj ca biir nag lépp lakk dem sax ba këyit yi nga xam ni nit ñi moom lañuy soxla tàkk ba jeex mu nekk naa kër lu ñu ñaawlu. lii de moom ku ko gis xam ne lu doy waar la parce que mairie commune d'arrondissement la nouvellement installé ñu woo ma léegi ne ma dañu saccagé mairie bi bi ma ñëwee aussi dama gis que vitre yëpp dañ ko tojate bureau yëpp dañ fa dugg lakk ko génne matériel informatique ba fa nekkoon lakk ko. état civil dañoo dugg archive ya fa nekkoon les registres de naissance de mariage de décès lépp ñu génne ko lakk ko yéeg ci kaw dugg bureau adjoint au maire yi génne leen lakk leen fii daal boo ko xoolee comme situation bi ni mu présenté woo matériel bu amoon ci maire bi génn nañ ko teg ko ci tali bi taal ko metti sonn nañu suñu doom mënuñoo jàngi ñëw génn dem boutique ba sonal nañu trop sonn nañu sonn nañu. ba ñu téye nag seen njiit ba léegi cantaku ni di ko diggaale ak takkandeer yi loolu dem sax ba sonal askanu Thiès wi ñoom nag ñuy ñaan mbir yi dakk donc nit ñu aussi bu fekkee ne dañuy xeex tamit war nañoo xool lii nga xamante ne alalu askan wi la archive askan wi la ay données askan wi ñoo fi nekk ñu lakk lépp. pour régler un problème boo xamante ne maire bi yoonam nekku ci vraiment lu ñu war a xoraat la vraiment lii moom dafa bokk ci loo xamante ne dañ ko war a punir dañ ko war a sévir te depuis barki dem ba léegi xale yi jàngeetuñu ñu ngi nii toj nañu kii bi mairie bi toj nañ poste bi kenn mënatul a dem marché kenn mënatul dox sa activité ñun nag bu ñu mënee dimbali nañ ñu dimbali parce que ñun ñoo ci gën a dee ñun waa quartier Somme dugg na ñemeetuñoo dem fenn lekkatuñu naanatuñu ndax manifestation yi. ñaxtu bi nag dem na sax ba ñenn ci cantaku ni ñu téye leen takk der yi di wax ni ñoom li leen tax a jóg mooy maintenir ordre bi ak nuñ ko mën a defee.